ngay secrétaire en tant que ce rôle bi nga am lan nga ñu si mën a lan nga ñu si mën indil. merci beaucoup encore une fois bon comme ni nga ko rek maa ngi secrétaire général de la zone muy poste bo xamanteni ci si na ci poste yi gëna metti ci zone bi parce que je coordonne tous les activités de la zone réunion bu amé ma koy coordonné marche bu amé ma yobbu PV yi n'importe quelle heure nak amul heure. euh PV bu PV bu ba pare on m'appelle maa dem jëli PV yi jokkoo les VIC ODCAV CKP ñëpp kon sama rôle ci zone moom nekk na ci rôle yi nga xamante ne si du ma ni moo ci gën a métti de mais bokk na ci yi gën a métti mais nag sant yàlla bu baax parce que ñun ñoo ko tànn jël ko te ñu ngi koy gérer te yàlla mi ngi ciy dimbali ba ñu ngi ci cappaandaw la. encore une fois ñun jeunesse Kébémer ñu ngi leen di jaajëfal ndax bu ngeen fi nekkutoon mu ñaaw. ndax tey jii ay jeunes kese mën nañoo dox mais liñ naa mbooloo mooy doole kon nag suñu secrétaire bi gàcce ngaalaama mais nag am nañ beneen question bu fi nekk comme tey euh, lan nga ñu mën a wax ci zone comme ay bilan wam li mu am ak euh, ba ngeen commencé ci nawetaan yi léegi lan ngeen ci gis. waaw pour ma wax ci bilan zone dina ma jafe question boobu moom dama ci sori parce que nawetaan yi jeexagul nawetaan des na. xam naa bu jeexee personne bi nga xamante ne si moom mu placé di ngeen def ak moom émission dina leen si indil ay éclaircissement mais par rapport ak euh, navetani yi moom macha allah ça se passe bien comme ni ngeen ko xamé je crois que zone mi nga wara def lim wara def lépp pour réussir navetani ci côté code part ci côté organisation sur tous les domaines lépp lo xamanteni si rek am nañ ci idée bo xamanteni si buñ ko défé rek ñu xamné navetani navétane yi dina rafet dinañ innover vraiment la zone mi ngi waaw ah, ma ci sant encore une fois membre zone yëpp nga xamante ni si ñu ngi bokk liggéey bi vraiment. léegi yéen waa zone est-ce que mun ngeen am ay problème yu ngeen di jànkuwanteel ci biir nawetaan yi est-ce que comme am ngeen loo xamante ne jot ngeen ko see dund mu naqari leen yéen waa zone. wala am ngeen si problème yoo xamante ne bëgg ngeen kaa wax ak askan wi pour ñi nga xamante ne ñooy joué nawetaan wala ñi nga xam ne ñooy dirigeant nawetaan yi ñu leen see xalaat côté boobu. merci beaucoup question bi ma posé bokk na ci question yi ma gën bien, neex bi émission bi commencé ba parce que membre zone à chaque fois mi ngi jàkkoonteel ay problème face à face wala ci réseaux sociaux Facebook WhatsApp et genre mooy loolu parce que nag daf ci am ñoo xamante si comprendre dans la zone di doxee Donc, par exemple dans nga ciy gis ku dem fubali at bi def erreur xam nga l'erreur est humain. du ma ne yàq sa match at def erreur ci match am match bi nga romb ko muy saaga yéen ñëpp a yem naan membre zone dañoo nangam tan sen day ñoom ñoo yàq suñu match dana leen kon ki il n'a pas compris mom comprendre wul yaa dégg wala réserve am CQRP tranche CQRP dafa nekk ci biir zone bi composé de 5 membres ñu atté ba paré nga romb nit ni non wa zone la ñoo ñu sàcc ñoo sàcc suñu réserve wa zone ay sàcc la dañoo bëgg ñu toog yaa ngi dégg ak tant d'autres problèmes yu mel non yo xamanteni ci si da ni loolu incompréhension moko ko waral motax genre émission def ci bax pour ñu éclaircir affaire yi di leer ci bop gaay yi yaa peut-être nak zone mën nay def erreur erreur rencontre euh genre mooy loolu non mais amna ci yo xamanteni ne c'est du domaine zone yaa ngi lu ci melni arbitrage yaa ngi arbitrage ak zone c'est diamétralement opposé yaa ngi ñun les arbitres on les paie ñu ñëw duñu arbitrer yaa ngi des fois sax sécurité day xawa ki sax ñu non wa zone nak ak nangam moy loolu ya ma te pourtant ñun tamit sécurité bi dañuy ñëw. ñu ni jàppale ci organisation bi mais boo amee faay sax da ngay dégg ñu ne waa zone mais nag ku boot bukki xaj boobu la ak cant la parce que fii on critique tout le monde mais l' essentiel mooy ñun ñi ngi ci liñ war a nekk te yaakaar naa ni Kébé maire ñi ngi kontaan ci ni nawetaan yi du doxee néew ma defuñu lu fi kenn deful de mais leer na ma ni man ñi ngi def loo xamante ni sii daaw fi am te incha allahu rabbi bu ñaari finale jàllee da xam ne zone bii wute na yi fi daan nekk waa kay comme ni nga koy waxee rek nee nga ko boot bukki xaj yu mow la te moom yaakaar naa dëkk bi ku nekk gis na fi ambiance ku nekk nga si gis sa bopp jaaykat yi nga xam ne gëjoon nañoo jaay ñu ngi liggéey ci nawetaan bi et tëggkat yi ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que équipe bu nekk mu ngi jéem a def volonté jéem a xumbal stade bi parce que nag nawetaan gëjoon na fee am kon tey jii nii buñ demaatee ba nawetaan am ak suñu stade Iba Mar bees bii nii nga xamante ne inauguration bi rëyoon na macha allah. léegi kon yow bi nga xamante ne zone nga nekk est-ce que am ngeen problème yu ngeen di ak mairie bi wala xam nga bu nekkee ci stade bi xa jeunes yeeg yooyu am ngeen problème parce que mën nañoo bañ a xam nu demee nga wax ñu jël lépp sipp ko si kaw zone mën nañoo réserver réserve ñu xam nu demee ñu sippee leen ko mais yéen ak mairie bi comme yéen a ngi liggéey ci loolu la nga ma si mën a wax. waaw ñun ak mairie bi moom yàlla def na ni ñun mairie ak waa trésor sax dama leen ci boole. yalla def nañu amuñu benn problème ak ñom parce que mairie moy responsable stade bi mairie dafa louer zone stade bi zone momu stade bi stade bi ñu nak ñëpp ci yam comme yeen wa Kebemer TV tey bu la neexon dem gis Demba ngeen def réservation ngeen teug fa match la gala zone tamit dafay def réservation louer stade bi di fay maire yi yaa au début je crois que don nañ fay euh, je crois 20000 francs mais buñ démé ba ci digg ba tamit ñu waxtaanaat xamné carrément tamit euh maire yi yokk je crois def ko au moins ci aperçu bu baaxa baaxa baax 40000 je crois bien mu nek lo xamanteni ci nak lu yanu mana la ñu nangul ko wa maire yi yaa dégg parce que nak vraiment stade du melni am tapis synthétique bu bees tak am projecteur yaa ngi dégg vu les entrants yi nga xamanteni ci zone mi ngi koy def ak les recettes yi nga xamanteni ci équipe yi ñu koy am c'est très normal maire yi nekk ci 40000 francs ñu nangul leen ko mais depuis boobu ba léegi moom wax dëgg yàlla muy maire di trésor amuñu ak ñoom benn problème seen montant mi ngi dugg maire mi ngi dugg trésor vraiment macha allah. en tant que représentant zone léegi yow yan euh, projet ngeen am dans le futur wala comme nawetaanu ren yi nee nga jeexagul ba sama bilan comme defagoo ko léegi fi nga xamante ne nawetaanu déwén incha allah léegi lan ngeen xalaat comme luñ mën a dolli ci stade bi wala yeen seen gis-gis la ngeen xalaat lu ngeen ñu mën a yokkal ci nawetaan yi. waaw là aussi il faut que ma indi ci benn petit éclaircissement parce que on avait benn mandat bu 4 ans 3 ans yi stade bi dafa nekkoon en phase de construction ñun suñuy 4 ans benn mandat lañ ci def activité nawetaan muy ren te day jeex ren donc déwén incha allah rabbi dañuy renouveler dañuy renouveler lépp waaw dañuy renouveler président équipe bi renouveler zone. Ocav Odecav lépp mais nag sur ce comme que am na ci liggéey boo xamante ne si commencé nañ ko am nañ yéenay àggale ko yaa ngi dégg am nañ yéenay tamit incha allah rabbi ñawaat déwén occuper les mêmes postes wala ñu occuper yeneen postes yoo xamante ne si c'est plus responsable mën a indiwaat mën a am mën a àggale liggéey bi nga xamante ne si sumb nañ ko waaw côté innovation nag par rapport ak stade moom euh, yaakaar naa ni suñu bébét mooy vraiment maire jàppale ñu yokkal ñu tribune yi parce que tribune bi dafa xat ba sax dañoo mujj a loué ñaari tribune dugal ko ci ci mais courante bi li nga xamante ni si tey nangul nañ ñu ko par compréhension mais yàlla traité traité ko tey bu dégénéré rek mara de te nañ ko gérer ba nawetaan jeex kon tribune moom stade mel nii daa am tribune nga xamante ñëpp dinañ mën a yegg mais courante bi ña fa a nekk rek nekk fa waaw stade tamit am na espace bu bëree bëree bëree bëree bëri bëri am na leneen rek leneen loo xamante ni si mën nañ ko ca ñu ngi leen ci solliciter ñu defar ko parce que day protéger synthétique bi yaa ngi dégg ak tant d' autres choses yoo xamante ne si mën naa am ci kii bi parce que espace bi bari na ay yeneen terrain yu ñuy loué piscine pourquoi pas genre mooy loolu yàlla baax na daal waaw yàlla yàlla matale yéene yi mais yàlla baax na li ci kanam daal la wuti bët. ok merci beaucoup maa ngi lay jaajëfalaat euh, léegi waa li nga wax tamit xalaat bu rafet la ndax nawetaan bi ku ne xam na ne comme ñu ngi naan départemental waa Ndambe fii la ñuy football see Euh, waa géwul yooyu yëpp léegi loolu da siy baax ñu mën a doolu turbine yi nga xamante ne ñëpp dinañ mën a bokk te comme nag fu gëj am nawetaan la xale yi na moon nawetaan ñëppay génn mais man lenn mooy euh, nawetaan yi dem ba ouverture ba nga xamante ne instant bi école tijji na ba dem ay mois te teewul nawetaan yaa ngi continuer te ku nekk xam na ne élèves yi buñ commencé ay devoir ak yooyu yëpp day am léegi loolu ba xam kii lay wàññi day wàññi billet bi

parce que bu dee match derby la moom nit ñi dañuy génn mais bu yenn genre match bon day wàññi bi bu baax a baax a baax a baax a nawetaan ak année scolaire yàgg nañ c'est une wax dëgg yàlla nawetaan yi day resté mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam parce que bu dul woon yaakaar naa ni réserve yeeg appel yeeg genre mooy lool kon instant bi nii fàtte nañ nawetaan mais nag réserve ci nawetaan la bokk appel ci nawetaan la bokk moo tax bu nekk da koy jox cër jox ko wàcc waayam jox ko lim moom waaw mais sant yàlla comme li ci des moom bariwul nañ ñaan yàlla rek ñu jeexal ko ci jàmm quoi mais billetterie bi moom da ciy def effet bu baax a baax a baax a baax te en plus tamit dans l'avenir tamit danañ gën a góorgóorlu ba muy yam ci vacances yi quoi vraiment parce que loolu moo suñu bëgg parce que activité activité de vacances la mooy loolu. waaw d'accord beaucoup maa ngi lay jaajëfalaat wax vacances te comme école mais actuellement li ci des bëreetul parce que ay phase demi-finale lañ toll ay finale lañuy xaar. comme coupe mère ay final lañ toll comme toll nañ ba fii ñu gën a ñaaxaat askan wi ndax ñun amuñ lu dul nawetaan amuñ lu dul suñ dëkk comme gëjoon naa am bam am ku nekk bay na si sa waar ñii def nañ si seen jot ñii def nañ ci seen doole ku nekk def nga si li nga mën ñu leen di gën a ñaaxaat ngeen waajal final yi ci koñ yi ku nekk euh, mën a def mobilisation bu doy nga fësal sa koñ fësal nawetaan bi nga jëm te ngeen bañ a booloo bañ a indi violence parce que ku ne ne ñëpp ay mbokk lañ gaa ay see yu bëri nañ dëkkandoo nañ dendee nañ koñ yi mais lépp na empleur bi yam ci stade beeg ci coow leeg match bi bu ngeen paree ngeen àndaat ndax yooyu amul benn sens ku fi gaañu yaayu jàmbur lay faj boo paree da ngay rus te ñun jeunes yi ay élèves lañ soit dañuy liggéey suñu parent rek la ñuy dimbali waaw c'est ça tamit ñu la koy waxaat dafa mel ne samay question mom loolu léegi yow yane contribution nga si meuna am yo xamante ne askan wi buñ ko déggé dinañ mën dalal sen xel ci nawetaan yeeg yooyu wa vraiment wax nga lépp yaakaar naa ni li ma wax wax nga ko moy li ci ëpp solo moy fair play bi encore une fois ñi ngi lancer waat comme ni ko waxé rek à tous les quartiers yi nga xamante ci ñi ngi ci Kébémer xam ne nawetaan activité de vacances la day dem mais lien yi am entre koñ yeeg ñoom seen day des moo tax daal ñu gën a farlu rek benn demi final moo ci des ak ñaari final ak départemental genre mooy loolu. mu ngi leen di ñaan rek comme que agsi na ba fii moom te ñu ngi si sant bu baax a baax a baax a baax a ngi leen di gën a ñaan ñu gën a fair play xam ni kaf la fo la agréé gis nga nawetaan li ci quartier yi di dépensé booleel coupe yëpp jël xoolal un tiers bi sax du ko du ko génne pour vous dire que plaisir ak depan sokoñ sen wa kontan. koñ contane motax gis nga ku ci xam lolu wallahi do ci ñaaw wa encore une fois ñing leen di ñaanat ñu jital fair play bi jital kaf jital fo jital re parce que c'est le kemer ki kay c'est nous dans nous Kebemer Ken bopp la ken mënu ko xam ñaar daru lu fi wala ke ay ay jël ci pourtant dañuy exploité volet culturel bi mais nag euh, volet espoir bi ci la ñi gën a sukkandiku parce que tamit Kébémer volet volet espoir bi lañ gën a farlu parce que da ngay nekk ci koñ sax ñu nekk vacance nga woo leen set setal mais ñaari nit ñetti nit ñooy génn te pourtant bu ne mat am na koñ bépp dañuy bàbbeeku moo tax instant boobu noonu gis am na ci loo xamante ni tamit nit ñi ñoo la ci mën a jàppale nit ñi ñoo la ci mën a motiver pourtant Oscar des vacances am na fi ren Oscar am na mais gis nga ni non c'est est privé exemple laa la jox c' est privé. parce que tey zone mën na imposer ay chaque IC séries. Mhm. pour appuyer biir zone te forcément nga équipe mais ba mën nga équipe pour la culture au stade des vacances. dama la jox exemple dama la jox exemple gis nga bi nawetaan amul ci at yee ñu genn mhm. zone dafa dese woon organiser Oscar des vacances ay cours de vacances genre moy lool non ñu waxtaan ci ñu dem suñuy ASC ñu rendre leen compte mais après du am suivi quoi. da leen ni ñi sawaruñ ci ñi mom gis nga. ASC yi moom dañoo jël volet culture bi rek ray ko jël volet sport bi surtout football bi rek. jël volet sport bi surtout football bi rek daa koy favoriser à 100 pour ma xam-xam ni man artiste na yow du ma la wax benn wax muy hmm. man su ma sañoon dañuy boole volet sport ak culture hmm. mais nag dana ci gën a bàyyi xel danañ ci comme ni nga ko waxee bu dans l' avenir bëgg nañ tamit tey bu ne taj vacance rek ñu jiital tamit jël volet culture boole ko volet sport vacance yi day a nekk rek parce que

temps yi ampleur bi am koñ boo toll yaa ngi dégg jàppoo déggo jàppoo déggo seen réserve bi d'ailleurs jàppul woote waat nañ appel lu waral loolu te ku nekk mu ngi naan parce que déggoo li muy feesal stade bee tax réserve bi jàppul réserve bi dafa war a jàpp parce que déggoo buñ amee match billet yi mooy gën a jar nit ñi si la ñu gën a ñëw kon ça veut que ñoom jeunesse bi yëpp jàpp nañ ne réserve bu jàppul rek parce que billet yi li muy jar la macha allah posé nga ma tamit question boo xamante ni si bokk na ci question yi ma gën a neex te bëgg nañ ci indi ay éclaircissement par rapport ak PV ñu ngi ci quatorze PV kon am na quatorze acte yoo xamante ni si waa CQRP acte nañ ko ma ci nuyu waa CQRP de passage le président Abouba Papa John Faye Abdoulaye Kane Faye ma xam ak Moussa Fall parce que li ñuy daj ci réserve yi buñ ko àttee bu la ko waxee wallahi doo gëm dañuy toog midi di tranché ma leen ci sant di leen ci gërëm beneen bi topp mooy réserve dafa bokk ci nawetaan comme ni ma ko waxee réserve ak nawetaan benn mënta dem ay sa morom yaa ngi dégg mais nag jàppoo déggoo moom ku ne xam ne ni mooy classico meex ñun dañ koy nangul parce que jàppoo déggoo buy fubal sax gis nga stade ba li muy génn ci xaalis wax dëgg yàlla te kii bii di fubal buñ ko am moo tax moom seen lépp day bari coow mais nag gis nga en matière am lu ma la ci wax. gis nga boo réservé ba dugal ban accepté dañ lay jox PV buñ àttee pare dañ lay jox PV gis nga PV bi lay jox boo ko liiree bu fekkee da ngaa daanu dinañ la wax li la daaneel dinañ wax lii ak lii lii ak lii moo la daaneel bu fekkee daanu woo danañ ni daanu woo ndax lii ndax lii ndax lii ndax lii pour vous dire que en matière de réserve sàcc bari wu ci de du ma ne amul parce que wóoruma waaye sàcc de bari wu xam nga sàcc bari wu ci mooy li ma wax. da lay jox PV bu la joxee PV nga liir sa PV boo d'accordul nga ni waa secrétaire bu da dañ may xeex am nga possibilité def appel comme li jàppoo def dem ODCAV waa ODCAV jël tranché atte ah waa ODCAV kat dañ may xeex d'accorduma am nga droit dem si saisine foofu nag moom mooy dañ dëpp fay cent mille francs dem saisine ñu tranché te yaakaar moom trois yi buñ même PV nga war a xam ne nag kon loolu moo am yaa ngi dégg rumeur nag day daw mënul ñàkk surtout ci réseaux sociaux yi déggoo day dugal xaalis moo tax waa zone di leen faral patiti patata no loolu ay waxu supporter la stade ren bi ku fubal mu fees nañu waxante dëgg peut-être nag match yi am na ci yoo xamante ne si ñoo enjeu encore une fois CQRP ils sont indépendants monsieur Ba CQRP président CQRP ñaata yoon lañ daaneel jàmm gan réserve def teel président de la CRP bu jàmm gën wala daanu réserve day daanu waxalanku Pape Faye bu déggoo secrétaire administratif bu déggoo wala daanu ci réserve yàlla xam na ne day daanu du ci mën dara dara dara dara dara grand ma xam ñaa bu guy gi même chose kon encore une fois nañ delloo ci xel yi yaa ngi dégg xam ne zone dafa tëddee njaaxaanaay ku nekk nag am na équipe boo far mais boo fraudé ban jàpp la wallaay zone mënu ci dara bu la toppee loo xamante ne si amul zone mënu la cee waaw affaire yi daal noonu la demee mais jàppoo déggoo moom daa nekk dër bi boo xamante ne si moom seen affaire moom mooy loolu quoi. Babou li ñu naan déggoo jàppoo si ki moom si kon loolu moom. yéen a yéen ñi seetaan yenn si mën am seen xalaatu bopp xaar réserve bi génne ñu fas xaar match nga xamante ne mooy bokk xalaat ak ki réserve bi di génnee. xam naa comme ni ma leen. appel génn na appel bi génn na appel bi génn na appel bi génn na. jàppul na jàppul na dem ci nag ñoom dese nañ beneen la chance mooy saisir. mais ñu ngi leen déglu nag seen droit la am nañ droit nag dama accès si nag demuñ si seen c'est mhm. léegi nag ñu programme marché bi jàmm ak déggoo. kon kenn bi 48 heures la wala. 72 heures 48 ah. de confirmation 48 heures. Mhm. télé d'appel 48 mhm. pour dem mooy saisir. loolu ba appel bi génn ngeen ba ba ngeen doog a programme marché bi. merci beaucoup.

tellement que réserve bi yàgg na yàggaay boo xamante ni si li ñu xaar nañ mu génn ñun su suñ xel nekkuloon sax def ci appel. yaa ngi dégg xaar kame ne léegi mardi bi dina baax parce que mercredi départemental dafa am le jeudi day jël élection duñu am sécurité léegi nañ jéem teg benn demi finale ko defee après les élections finale yi rek moo ci des xam nga rek topp suñu xër ak bëgg lu rafet yaa ngi dégg ba fàtte dalee dàppelu waa jàppoo man waa jàppoo am na ko ma woo si ñoom ne ma grand Samba ne ma Thierre lu tax ngeen programme match te ñun ñu war a def appel man wax dëgg yàlla dina ju waaye de bis bu appel bi duggee. Mhm. incha allah rabbi. Mhm. danañ fomm match mhm. di jégalu nag ASC Déggoo ak ASC Bokk Xalaat. parce que préparé la match ba nga préparé ko ñu ne match bu mais au nom de la zone en tant que secrétaire général ñu ngi leen di jégalu bu baax a ay xale di jàng. mën naa ñaar ay ngi dégg da nga ñëw si zone bi di jàng. Mhm. yaa ngi dégg kuy jàng nag da nga mhm. mais bu mokkalee rek xëy na peut-être dootu amati yëpp. ñu ngi mhm. jégalu ay see déggoo ay ak ay see jàpp. yi na koy fay baal rek. <laughs> ndàmpaay ah. waaw ndàmpaay. waaw loolu li gars yi a def si xar ñu <laughs> waaw kon boog match yi ni ñu ko jàppoon après ñu repoussé ko da leen gën a poussé rek ngeen yokk entraînement yi ngeen gën a renforcé ko nag dem ci koñ yi ngeen dee wax leen nañ ñu yëngal ndax jàppoo buñ leen gën demee bu nekkoon ñoo ñëw ci stade bi xale yëpp ay tëb miir waaw ak tëbkatu miir yi tamit génn leen ci li am et aussi bu nekkee loolu sama question bu ne man moom. question yi ma amoon yëpp kii naa ko édition yi tamit rafet na. xanaa mu jox la seen i défi. seen i défi comme yan yan. yan défi ñoo leen di xaar. yan défi mooy ñoo leen di xaar comme nee ngeen seen manga quatre ans la woon. ren jii leen si liggéey te nawetaane ku ne xam na li si des bëreetul léegi comme bi ñu waree changé waa dene manga léegi ñooñu bu nekkee quatre ans ñu ko dañ koy liggéey ah comme ku ne xam na ne stade bi bu nawetaane jeexee na liggéey ñu fas yéene dolliwaat tërbie ni comme ni ñu ko waxee sànq nga xamante ne euh, ñii ñëw dinañ mën a liggéey léegi ban kii am ban defi am ci li leen dese nii ci ay famille. waaw mais dañuy santal yàlla ma nga xamante ne si comme ni ko waxee ñu gérer depuis longtemps vraiment incha allah on loolu moom Dangote def na ko rénovation ci naka xam nga parce que équipe yi koppar yi ñu am ren. Mhm. ba Kébémer di Kébémer ba léegi. Mhm. kenn mosu ci am koppar. te presque jot koppar deux mille francs par presque nga wax yaa ngi presque nga wax équipe parce que gis nga nawetaan équipe yi la équipe yi ñooy les moteurs équipe ñooy mobiliser te yaakaar naa ni moom nawetaan ren yi moom. ba KMR di KMR ba léegi yéen ya waa KMR TV nawetaan rek moom la am fii ci KMR. nawetaan gis nañ suñu bopp de. ay dégg waaw loolu noonu. dépense bu métti doog na si gis. waaw d' accord loolu ñu li ñu yëpp miiraat na suñu bopp jëndee ko internet. d' accord nangu naa loolu loolu on a réparé la yaa ngi dégg comme première fois la après bu jeexee dañuy toog sur table ñu waxtaane ko ngeen wax lu leen métti loolu mënu ñàkk. ñu métti bari na. loolu waaw loolu loolu loolu mënu ñàkk ay notes loolu yoo xamante ni si dañ ciy jël dañ ciy bàyyi xel dans l' avenir yaa ngi dégg nawetaan yi neex na am na ambiance équipe yi ñu ngi ci gis seen bopp te mooy l'essentiel bi ci des nag mooy incha allah rabbi da ngeen gis final CNP mooy mës a gis ba nawetaan ak nga di nawetaan ba léegi boobu je te le dis en tant de la zone da ngeen gis final CNP boo xamante ni bu mucc ayib ak bu kooku moom maa ko parce que à chaque fois nag dina wax naan CNP soixante quinze kàttanu yàlla mhm. buñ déggee final CNP déwén incha allah rabbi mhm. dañ ci gis équipe boo xamante ne si bu nawetaan jeexalee commencé xoo pour mhm. dem final CNP déwén kooku moom maa leen ko wax si télé laay wax ragalu woo ci incha allah rabbi loo mën a wax si média yi seen taxawaay si nawetaan waaw vraiment yéen moom ñu ngi leen di sant di leen gërëm yaa ngi naa ma nag gisu leen si seen bopp loolu moom vraiment métti na ma trop trop trop parce que nag deux mille francs la ñu jox parce que nag parce que nag parce que nag man mosuma ko encaissé gaa. waaw accord man. d' accord parce que nag la preuve en est que tey dañoo am ay nit yoo xamante ne si dañoo nekk ci ASC yi. Mhm. ñi nekk bitim réew. ñi mhm. nekk Dakar di liggéey. Mhm. di participer ci ay yi. vraiment ren da ngay leen a may sax ñuy gën a mën a participer ci ASC yi grâce seen. seen rek yi ngeen def. parce que tey da ngay participer par exemple bi seetaan sa équipe après fois boo gis da gis naa lii gis naa lii gis na lii gis naa lii kon vraiment yéen moom waa presque moom cant ak ngërëm dong la leen amee jaa ngeen jaa ngeen am kenn macha allah en plus tamit match day am sax benn affaire am gars yi gis ni gars yi nekk état si jël jël téléphone xool naa TV. di ko faar am na amul. zaar ko faar mooy loolu gars yi demoon nañ sax ba ni. gars duñ jël benn booy arbitre xam nga rek gars yi des fois ñu wax seen i xalaat. noonu di xool affaire kon. kon ku nga xam ne presse bi ñëwam ci nawetaan yi daf ci que. Mm-hmm. doo da ngeen gal da ngeen ñoom galgal côté bu nekk man heure bu nekk nee neen ma arrêté en direct man. waaw non xam nga rek tamit loolu ay kii la rek. ay <laughs> dëgg si mooy loolu noonu. man maa ko bul arrêté. mais cant ak ngërëm moom ñeel na leen surtout nag waa Kébémer TV. yéen moom vraiment yéen a def liggéey bu am solo. waaw borom affiche yi man affiche moom stratégie laa gisee waaw te pourtant amoon na ku ma en tant que secrétaire général ku ma waxoon sa benn xarit mooy defar affiche. ma xam na kii la mais miracle ma dem miracle ma ko doon defal gratuitement mais après damay gis nga dugal ci Facebook wala genre na la ca bañ fekk parce que mënoon nañoo moom yéen a ngi jàpp bu baax a baax a baax a baax a toog sur ci waxtaan parce que nag président zone jox presque a suuxee beneen sax de. bu dee xeexay doon de. ak kon boog ñu lay sant ak di la gërëm ngeen doon seen loxo te yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo ñu ngeen ngeen di di partager. ndax liñ naan doole jënd ndax te doole laay kat yi tapote kat yi koy mën a mën a yéegal dee leen tapote dee leen ngeen di partage nga xamante ne ñëpp koy mën a jot ci laay bi nawetaan Kébémer nag Sénégal yëpp di ko ku nekk naan non kon xale Kébémer mën nañu ba lii te nag suñu jigéen ñi leen jaajëfal ñu ñëw stade dañu ne sañ sa ba jekk ñu toog laa seedi bi tegle seen tànk jaaykat yi ñu ngi leen di gërëm bu ngeen jaay saxaaral stade bi yëpp bu seen bi yéen lañ mhm. mais supporter tëgg même sa équipe adverse sa day xam yow li ngay supporter neex ñëpp kontaan si yéen macha allah kontaan nañ si yéen euh, leen fàtte di laal cloche bi lépp luñ dugal rek jot recevoir tous nos nos notifications Et incha jox ñu mot de la fin loo xamante ne ngay tàggatoo ci

waaw ci tale yu mag yi ñuy dégg ci aduna bi ñu leen ci dégg pourquoi pas affaire mom gëm sa bop la rek tout début est difficile nak waaw comme sank ya nga wax problème xaliss mais bi bu leen xaliss ñi tal leen bëgg-bëgg rek inshallah rabbi xaliss bi day ñew parce que li ngeen def mo ngeen ko ah te naas na jeyuma leen nak mais vraiment li ngeen def mo ngeen ko nas na ay xalé ngeen waaw dama leen ñaanal yalla bu baaxa baaxa baax fi ngeen bëgg yegg yalla ngeen fa yegg di nuyu Kemer gi di nuyu wad wa zone di jël nuyoo bi diko tek ci président bi mu wacce ko ci gaay yep di nuyu les VAC ak seeni supporters parce que bu dul woon ñoom nawetaan du neex yaa ngi dégg dëgg yomb na de louer chaise yomb na waaye nit kenn mënu ko louer nit day ñëw seetaan si mu fees di nuyuwaat sama ay ASC Manko man amulul ASC Manko finaliste coupe maire ñoo ma délégué ma dem zone ba am fa post ba ngeen mën ma invité kon ASC Manko ca kaw sa kanam loolu beneen affaire la incha allah rabbi loolu beneen affaire la loolu xam naa di nga ñëw terrain maa ngi ko pour wàccuwaay final bi bul bul échanger échange eh, eh, secrétaire général qui parle mais pas Thier bu ASC Manko di nuyuwaat waa Tir Cadre yëpp di leen big up ngi dégg vraiment ça a été un plaisir de partager avec vous ces heures cant ak ngërëm ñeel na leen xam naa ne ba beneen yoon rek ci yeneen édition incha allah rabbi KMR TV forever le plaisir est partagé kon boog dinañ la seet si ba sa ASC Manko ñëw defal la xool nu ngeen di waajee seen nawetaan ak yéen ag yoon wi équipe bi ngeen am na keroog ñu ngi leen di jaajëfal mais mooy loolu Kébémer ñëpp dañoo taxaw ne yoon wi yoon wi day dem coupe yëpp far yàlla déception daal di ñëw mais Manko dina ñëw seet si leen xool ni ngeen di waajalee yoon wi tamit dina ñëw seet si leen xool ni ngeen di waajalee seen final ndax finalu coupe maire yi buñ ko oyofalee rek ku élection législative ku ne xam ne ginnaaw suba lañ war a xool maire yi ñu ngi leen di soññaat ngeen voté ndax ku nekk sa maire dëkk yaa ko mën a wutal sa bopp législative les députés ku nekk euh, sa député bopp yaa ko luy jëmale sa réew kanam yaa ko xam yaay xool ki ki nga def sa choix nga voté ki nga xalaat ne baax na ci réew mi nga def ko ndax tey jii nii ku nekk boo votelee voteloo sa bopp mais pour askan wi yëpp nga voté ndax kii nekk député nekkul député këram kese député askan wi yëpp la fi nekkal kon nag ñu ngi leen di jaajëfalaat yéen ñi nga xamante ne yéenay suñuy internet tey jii nii maa ngi am si caméraman bi sama caméraman bi Mori Mori Mara man seen présentatrice Aïssatou waaye remplacé di ja maxtoo nag gan laa yéenay xool rek ba xam da ngeen may dalal wala maxtoo ngeen di choisir mu ñëw ah juste que ñu leen di jaajëfalaat di leen wax euh, ba beneen émission incha allahu rabbi lii ci waxtaanee nawetaan yi. Saadul Abi Wuldu Muhammad Fadal borom jànnaara Nimza sale yaa ngi baawaa. attention mesdames messieurs population du département de Kébémer Kailen leen ma dey leen xéwal na ci biir Kébémer waaw nee naa la menuisier yi waa kër na indil na leen ay oui ay xéwal yu am maanaa ndaw leen gaaw ngeen jege menuisier yi waa kër na Seex Saad indil na leen ay lal ay lal yu waaw ay bois waaw nee la lépp loo bëgg lu jëm ci menuiserie de bois am nañ ay lalu importé am nañ ay lal yoo xam ne si lal yu mucc ay feetu lal boo bëgg boo daw see biir menuisier na la koy baaxal ak ay prix abordable nee la mi ngi nekk fii ci Kébémer marché central jàkkaarloo ak école 2 bo taxawé école 2 foo laajte menuiserie wa kër Cheikh na Cheikh Saad ñu ne la ma nga ne foofu nag boo ñëwee lépp loo bëgg lu jëm ci walu menuiserie de bois lal fenêtre yow mi yor ay bois bëgg ku la ko daggal am nan ay machine yu koy dagg défar ko ba mu normal yeen machine yi soxla ay planche daw leen contacté wa menuiserie wa kër Cheikh na Cheikh Saad bu yor nan ay machine yu défar ay planche daggal la ko ba mu jaar yoon waye nee la yow mi bëgg lu jëm ci walu fenêtre lepp lo bëgg lu jëm ci walu menuiserie de bois dawal nga contacter menuiserie wa cœur Cheikh Nasser Sadou gérante bi di Pape Dacoumba oui Dacoumba Dieng ñu gën koo xam ci Pape Dieng boo contacter Le loo soxla ci walu renseignement lepp lo soxla ci walu information dina la ko wax dina la dalal waye mom tamit nénal, un homme de développement Pape Dakoumbe. mom kat dafa taxaw tém ngir jappalé askanu Kébémer waye dafa taxaw tém ngir jappalé xalé yu Sénégal kon daw leen gaaw ngeen contacter ko ci 77 233 03 77 77 233 03 77 Pape Dacoumba Dieng ne boo ko contacté lépp loo bëgg lu jëm ci wàllu menuiserie de bois lal armoire la lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu bois nee naa la moom expert la ci boo dawee dina la ko defaral liggéeyal la ko ni nga ko bëgge yow ñëwal rek wax ko sa soxla ne ko lii laa bëgg mu defaral la ko ak ni nga ko bëggee ces menuiseries waa kër Cheikh na Cheikh Sadbou ah dana taxaw temm ngir jàppale askanu Kébémer ak li ko wax dal ak jàmm ci suñu biir quincaillerie général sec Serigne et frère nek fële ci Kébémer marché central bo ñëwee biir quincaillerie sec sek et frère lépp lo soxla ci matériel construction lépp lo bëgg lu jëm ci walu bâtiment construction dañ la koy jaay ak ay prix abordable wi da nga soxla ciment fer béton lépp lo bëgg lu jëm ci walu construction bo ñëwee biir quincaillerie général dañ la koy jaay en gros wala détail lépp lo ci soxla am nañu ko tawsil sil ci wa waa quincaillerie général Serigne Bara Mbacké yemuñu foofu matériel plomberie Les sur soxla ci le matériel plomberie compteur robinet les poulots bug amener des ci biir quincaillerie générale waa kër Serigne bataille, Mbacké matériel électronique ay matériel solaire tableau solaire les poulots bug le jëm ci i ay panneau solaire quoi daw ces biir quincaillerie générale ou kër Serigne dans le le la koy jaay ba équipe am oui ay expert, large soit utile et équipement de qualité matériel de construction pour tous vos travaux produits de plomberie électricité peinture menuiserie et bien plus dañoo am ay ndaw ay experts oui conseil d'experts pour vous accompagner dans vos projets ay xale yo xam si dañ lay taxawu ci sa wàllu le taxawu ci sa bâtiment ba lépp jaar yoon ba lépp yemb lépp yegg nee na la fenn rek nga ko mën a amee biir général wa, waa kër Serigne Bara Mbacké la contacte da ngay contacter gérant bi oui le gérant l'homme toujours copié mais jamais égalé Abou aboussen, Abou et mi nga xam dafa taxaw les départements département Kébémer mère. naa la kii day voyage. voyager fu matériel bu que mu yenu ko indil ko waa ko contacter lepp lu ngeen bëgg ci conseil wala lepp lu ngeen bëgg ci information dina leen ci taxawu jaay leen ko ak ay prix amana man ko contacter ci 77 650 81 10 77 650 81 10 wala nga wodi ci 70 655 47 87 70 655 47 87 wala nga contacter ñu sunu mail abou 1gmailcom 1 arobase gmail soxla ci lu jëm ci walu information daw sil biir quincaillerie générale waa Serine Serigne Bara oui quincaillerie générale waa kër Serigne Bara votre partenaire de confiance pour tous vos besoins à construction et bioclasse. venez vous rendre visite dès aujourd'hui taw si gaaw ñoo ngi ci central boo ñëwee et laajte imbu seen ñu quincaillerie générale Serigne Bara Mbacké teraangay nalaw soo ñëwul kan mu ñaaw jama dal les ak tu ci une boutique Nimza Telecom, l'univers de la télécommunication de pointe c'est Nimza Telecom. oui boo ñëwee Nimza Télécom lépp loo bëgg lu jëm ci wàllu télécommunication dans la koy jaay ak ay prix abordable fii am nañu ay iPhone iPhone 6 ba iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Pro Max dernière génération boo ñëwee di ko am Nimza Télécom waaye yemuñu ci iPhone kese nee naa la techno boo bëgg Spark 8 9 ba 10 boo ñëwee ba 20 ba 30 am bien biir Nimza Telecom waaye yemuñu foofu tamit ña nga ca Samsung ya nee naa la Samsung boo mënti bëgg boo ñëwee biir Nimza Télécom di nga ko fi am lépp loo bëgg lu jëm ci wàllu téléphone portable daw sil biir Nimza Télécom nee naa la chargeur loo soxla lu jëm ci wàllu communication daw sil biir Nimza Télécom Nimza Télécom nekk fii ci Kébémer marché central boo taxawee ci pharmacie baabu foo laajte Nimza Télécom ñu ne la ma nga nee ah mbokk yi kon daw si leen gaaw li koy xéewal la ci Sénégal waaye rawatina Kébémer ak li ko wër département Kébémer xéewal wàccati Médina bi Kébémer daw leen ngeen Nimza Télécom mu faj seen i réparation nag dañ koy def lépp bug bëgg lu jëm ci téléphone ce téléphone dafa un problème wala ce téléphone dafa panne écran wala mu pan batterie boo daw Bir Nimza Télécom dañ lay offrir lépp bug bëgg lu jëm ci wàllu réparation téléphone yéemuñu ci jaay téléphone rek boo déwee biir Nimza Télécom nous offrons des services de réparation experts pour vos smartphones que soit le problème écran cassé batterie défaillante ou autre panne technique nos techniciens qualifiés sont là pour redonner vie à vos appareils yow mi sa téléphone am problème déggal ma loolu boo ñëwee fii Animza Telecom, Télécom sa téléphone am problème écran problème batterie ak bépp problème bu mënti am am nañ ay technicien, yu qualifiés seen xam-xam màcc lool jëm ci wàllum réparation téléphone dañ la koy defaraatal ba mu baax defar la ko ba mu ne cocc jox la sa téléphone and, ak garantie nak, bir, Nimza Telecom, la am kon daw gaaw ngeen contacter DG bu mag bi Gora Kassé Kassé Mabo nee l'homme toujours copié mes amis galé, un homme de développement développement xale bu am jom am fullaak fayda boko contacter lepp lo bëgg lu jëm ci communication les lo bëgg lu jëm ci walu téléphone wala réparation dina la ci taxawu nag waaw accueillir la dalal la defal la lepp ni ko jëlal numéro bi 77 231 37 421 77 231 37 421 wala nga woko ci 70 897 82 59 70 897 422 59 kooku moy DG bu mag bi góor a kase la Boko lu jëm ci wàllum communication téléphone Samsung iPhone Tecno bépp marque boo mënti soxla ci wàllum téléphone daw sil gaaw dugg ci ñu biir showroom na Nimza Télécom suñu boutique nekk fii ci Kébémer marché central la nee naa la boo taxawee pharmacie Babou wala nga taxaw marché central bu Kébémer képp ko laajte ne ko ana place yu góor a kase Nimza mu ne la ma nga nee naa la loolu benn la rek du ñaar waaye oui tu peux copier mais jamais égaler Nimza ko mu faj li jëm ci wàllu téléphone portable confortable lépp lu ngeen bëgg da prix abordable Nimza Telecom, indi leen ay téléphone arrivas iPhone you mucc ay ay dernière génération téléphone ma nga biir Nimza Telecom, Nimza Télécom dañ la koy jaay plus ay prix abordable defal la livraison partout au Sénégal Nimza Telecom, votre satisfaction notre prioritaire